bàyyi la nga nuyoog sénégalais yi nga xam ne nii bi ñu déggee ni yaay doon sunu gan ba tey kenn ku ci nekk yaa ngi yàkkamti woon jotaay bi tey ñu bàyyi la nga nuyoog ñoom président Idrissa Seck. jërëjëf Pape maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu équipe bi nga séqal jataay bi di ay kàngam ci métier journalisme. Mm-hmm. ma yàgg leen déglu yàgg leen a suivre xam ñu bari ci ñoom xam seen xareñ xam seen capacité ci métier mi leen yàlla sédd may nuyu kenn ku nekk ci ñoom ci turam ak santam ak ñi toog ci jataay bi yépp ci plateau bi di leen ndokkeel ci weeru koor wii ñu nekk di leen balu àq di leen baal àq di ñaan suñu boroom mu boole ñu jéggal weeru koor ci ñaari diine yu mag yi nekk senegaal yépp di weeru kooru jullit yi di weeru karem daje ñuy ñaan ñaari daje yooyu nekk yiw wu yokku ci senegaal nekk yiw wu yokk ci askanu senegaal amin di leen sant bu baax di leen gërëm ci invitation bi mhm. di am mbégte am occasion jàkkaarloo ak suñu compatriotes yi mhm. nga xam ni campagne bi ni mu tëddee ren mhm. dafa xat ba nuppi tombe ci weeru koor tombe ci weeru carême ku nekk xam na ni lu jafe la wante ku ñëw fii jàkkaarloo gis seen tool d'audience dinga xam ni li ngay wax dana fanaani tey ci kër yu bari ci Sénégal mhm. ak ci jasporaa bi mhm. donc loolu kenn amul njëgam ñu leen di sant di leen gërëm bu baax bi ngeen ñu ko baaxee mhm. yombalal ñu ko liggéey bi puisque am na gox yu bari duñ fa mën a egg donc ñëw fii waxtaane Sénégal waxtaane réew mi ku nekk wax sa xalaat ci dal ak jàmm loolu ñoo ngi leen ci gërëm di leen ci ndokkeel bu baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf président Idrissa Seck